rafetlu bu baax ndaje mi ñu fi def comme ni ko conseil technique waxee sànq ndaje la moo xam ne pour ñun waylaago yi am na solo trop ndax euh, comme ni ngeen ko xamee OMS ak Banque mondiale seen rapport bi ñu defoon dañ ne Sénégal téeméeri nit yoo jël fukk yi ak juróom dañ amee laago moo xam xeetu laago bu mu mën a doon ANSD tam wax na ni téeméeri nit yoo jël presque juróom-benn yi dañu amee laago lu mu ci mënti doon rek jàpp nañ ne lim bu takku la. muy groupe boo xam ne dañ leen war a boole ci li ñuy def war ñu leen a fegg parce que léegi way laago yi waxatuñu nañ ñu bëgguñu assistana bëgguñu ay ndimbal ay sarax yooyu li ñu bëgg mooy ñu xam ne ay citoyen lañ ñu delloo ñu sunu àq ak sunu yelleef bu ko defee ñu nit li ñu war ci contribution ci tabax bi ñu tabax réew mi ñu mën koo indi boo xoolee nag diagnostic bi ñu defoon ci groupe handicapé yi dañ ci gisoon ñeenti xeeti jafe-jafe benn bi mooy li ñuy wax accès la santé affaire appareillage yi pousse pousse yeeg beeke yeeg kaan yeeg yooyu beneen bi mooy jafe-jafe yi ñu am pour dem école ndax comme ni ngeen ko xamee suñu école yi suñu centre de formation toujours bu ñu koy tabax ca départ ba xalaatuñu woon ne dina am ñu amee laago ñu ko mën a fréquenter jàngalekat yi aussi ci seen curricula de formation ba ñu leen waajaluñ leen woon pour ñu mën a jël ay jàngkat yoo xam ne dañu amee laago même matériel bi ñu utiliser ci école bi sax léeg du dëppoo ak yenn xeetu laago yi loolu yëpp tax na mu am genre exclusion bu ndaw ci biir njàng mi beneen jafe-jafe bi mooy lu jëm ci wàllu liggéey bi parce que boo xoolee tam nit bu fekkee amul opportunité jàngi école amul opportunité liggéey li muy am rek mooy li ñu gis ndakaaru ak ci dëkk yu mag yi maanaam bari handicapé yoo xam ne dañu nekk ci mbedd mi di yalwaan donc bu ñu fexe woon ba ñoom ñëpp ñu mën a dem école fexe ba ñi ci mën a am formation ñu defal leen formation doon na wàññi lu baree baree bari ci yalwaan bi ensuite beneen jafe bi ñu gisoon mooy li ñuy wax cadre de vie générale ndax xam ngeen ne léegi Sénégal mu ngi quand développé mu ngi am train yu bees yu baax mu ngi am ay BRT mu ngi am ay pont mu ngi am ay autoroute mu ngi am ay immeuble yooyu yëpp mais dañuy bañ ñu fàtte ne ci biir citoyen yi war a jëfandikoo infrastructure yooyu am na ci ñoo xam ni dañu amee laago te war nañu ay citoyen lañ war nañu jëfandikoo yooyu loolu la ñuy wax aménagement du cadre de vie loolu aussi ñu gisoon ko comme jafe-jafe moo tax bañ ko gisee état du Sénégal wax ne kat lii pour saafara ko dañu war a jël loi loi boobu ñu tuddee ko loi d'orientation sociale loi bobu ñu def ci ben mécanisme bu ñu wax carte d'égalité des chances nga xamni carte bobu buñ ko joxé way laago bi dina ko yombalal jafé jafé yoy nga xamni yépp wax nañ ko sank. carte bi nak ñun ñu ngi rafetlu taxawal biñ ko taxawal parce que buñu faté né président de la république mom ci bopam mo ñëwoon def lancement carte bi Tay ji carte bobu réalité la ñu ngi koy sédélé ci réew mi handicapé yaa ngi siy jot mais liñ ci gis ci jafé jafé moy boo xoolee ñi war a jot carte bi comme ni ñu waxee entre un million et trois millions de personnes ak rythme bi nga xam ne moom lañ koy produire dafay yeex ba nga xam ne dañu jàpp ne bala ñuy matal ñëpp dina yàgg trop. alors moo tax ñu wax ne dañu war a dolli parce que loi bi dafa wax ne direction générale action sociale mooy defar carte bi kon war nañu jox direction boobu lépp li mu soxla ci jumtukaay pour mu mën a yokk rythme de production carte bi bu ñu wax jumtukaay nag du xaalis rek mais am na moyen financier technique logistique et cetera.

alors ministère yoy na ben bu ci nek tamit am na rôle bu mu wara jouer am na bu mu wara am pour que service bi nga xam mom lañ jox carte bi service bobu meuna nek service effectif moo lele ngeen dégg si raja yi wala si média yi yenn handicapé di wax naan ñun de am nañ carte bi mais ñu njariñ li tax ñu njariñ moy na rek ministère yoy ñoo jouer gul rôle bi ñu wara jouer joué dëgg dëgg motax ñu am yaakar ne tay ji comme ñom ñep ñi ngi fi bu ñu waxtaan ak ñom dinañ meuna a ay yoon yu yo Nous dinañ ci mëna dugg pour dox li nga pour service nek ci carte bi effectif. carte d'égalité des chances mom déjà objectif le bu nga xamné euh, président de la république daf ci tenir won commencé de 2015 à 2019 euh, pratiquement à 2017 lay wax objectif bu ngandé ngandé bu nga xamné les nit sax duñ ko atteindre mais quand même atteindre nañ ko ndax arrivé à ce que ñu am 50 000 cartes. Mais comme le président de l'association euh, a dit, ce qui est très tout par rapport à ce que nous fait, parce que si nous disons, peut-être que nous sommes entre 800 000 et 3 millions, donc si nous 50 000, Mais ce nous savons, si ce qui est non seulement nous, au niveau de la direction générale, nous des contraintes budgétaires, yi nga xam ne ñoom ñoo tax ba euh, carte yooyu pour ñu émettre leen ko dafa xaw a yéex tuuti ndax euh, chaque année après 2015 euh, dañu waxoon ne chaque année dañuy émettre au moins 20 000 cartes mais ren moom am na yu nga xam ne émettre nañ te yaakaar naa ne suñu génn yu ñuy njëkk a defaat bu ñu jógee fii dinañ séddale ay cartes mais à part loolu aussi il faudra que ñu wax que ne am na service yu nga xam ne dañ ko doon xaar ci yeneen sectoriels yi manam yenen ministères yi nga xamné am nañ en charge la question de la protection sociale et de la vulnérabilité euh, lu jëmmal manam si walu transport ñu xol nan lañ leen di faciliter sen euh, transport ci Dakar dem dik ak Sénégal dem dik faciliter leen également sen enrôlement si couverture maladie universelle euh, loolu ci côté santé la mais loolu aussi li ma ci bëgg doli moy képp ku nga xamné aussi am nga carte té demo affilié wu ci mutuelle yi l'agence euh, euh, euh, agence couverture maladie universelle Donc, on a jot ci kii boobu opportunité également il bourse yu nga délégation à la solidarité nationale et la protection sociale ñoom yore nañ ko à enrôlement bourse sécurité familiale Il y gis nañ ne fan yi ci jéego yu y a am solo gis nañ ko ci ndaxte nañ enrôlement 2000 personnes yu nga xam am nañ carte parce que avant ñu ngi amoon 17000 léegi ñu ngi mais li ñu bëgg rek euh, ci euh, jotay bi moy euh, ministère yo nga xamné président da leen daf leen joxoñ loxo ne leen nañu góorgóorlu pour que ñu jàppale tamit le ministère de l'action sociale ñu joxé sen engagement déjà bu ñu ñëwé fi tay ci loolu lañ jëm ak ñom déjà partenaires yi nga xamné ñom taxaw nañ pour accompagner direction générale action sociale ñom joxé nañ sen engagement donc nous pensons que bu ci jógee tay jii ci atelier bi